asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq tey baalu àq ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fu nu mën a nekk. dellu si waat nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen sit bi ñuy wax Tanime TV Seydina moo nekk ci xarale gi ñu ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 mi nam dégg ko mbokk yi tey taxaw seetlu bi mi ngi jëm ci. daanaka mën naan dama doon seetaan télé bi ñuy wax seen TV mooy ñooñu ci nekk di ay journaliste di def ay débat ci ngoon gi diggante cinq jëm ba dix-neuf yàlla dogal ma dégg ci discussion boo xamante ni jàpp naa ne am naa ci kàddu waaye am naa ci tamit xalaat euh, nit ñi dafa mel ni booy déglu seeni wax wala seeni analyse ñoom journaliste yi doo ko wutaleeg daanaka rek ay koo xamante ni daal météo la wala mën ngaa dem ataasax ba wax ne ndax doo ay saltige wala nga wax ay sëriñi wala nga wax ay gisaanekat ndax du ngeen fàtte fii ñu bare bare waxoon na ne Ousmane Sonko dina bokk ñiine du bokk ci journaliste yi ci sëriñ si eh, daanaka nga dikkaat ñu ne la Diomaye fay du bokk ñii ne dina bokk ñii ne du bokk journaliste yi Cheikh Yérim Seck nee na woon la yóbbu euh, usmaan songo du fi bàyyi Diomaye fay ma jàmbal jaañ nee na woon nit nu muy nekk ci kaso di bokk ñii jàpp naa bu fekkee ñii rek laa tudd ndax ñii mën nañ leen a génne ci cadre journaliste yi ndaxe tamit mën ngaa dëggal na ñooy original journaliste yi Sénégal doon soxla wala yin doon formé te bëgg bu noppee ñu taxaw déedéet da nga naa déedéet am na ca keneen ku ma dégg sax koo xamante ni kadeer la kadeer mi nekk ci moom it ci débat bi ci Sen TV ndey faatu mi tamit mm, yaakaar naa déggoon ngeen ko fii te kenn du ko génne ci journal si nee na woon jomaay euh, du bokk ba sëñ Saliou Guèye ne ko ban taxi moo la ko wax léegi loolu nag moo jar xalaat di wax di teg ci taxi dellu ci taxi wala ngay dellu ci ay archives wala ngay dellu ci bopp ci xalaat bu logique boo xamante ni lu mën a nekk la ak lu mënta nekk ñaar yooyu laaj ne journaliste bi xàmmee ko waaye eh, di tañax tañax rek te ñoom ñii ci boppam dama gis ne sunu classe gi mën naa cee ba génne sama bopp sax ay Cheikh Baara Ndiaye ak sunu classe gi ak ñeneen. dangay ngay dégg ñu ne ñooñu jàngunu xamuñu dara kon duñu ay si amuñu xalaat man duma leen déglu dégg nga ku mel ni eh, soxna si Binta jàllo buñ koy wax Cheikh Bara nee na man duma ko duma ko déglu ndax parce que loo jàngut ba noppi di ci wax man loolu mënuma ko léegi ndax mbir mi foofu la nekk ci ñàkk jàng dëgg la benn jéego la waaye jàng ba noppi te doo wax nit ñi lu leer doo leen wax dëgg ndax loolu taxoon na nit di jàng yow mi nga xam ne da ngay làmbatu sa njàng bariwut te yaa ngi tàmbalee ci li nga xam ak li nga xamut nga yem ci yaa ngi tàmbalee ci liy dëgg ak lu du dëgg nga bàyyi ko fa liy dëgg lu mu gàtt gàtt ak lu mu diis diis danga ko wax mais bu fekkee nag léegi kiy wax dafay réeral askan wi li muy wax dara Kader mii nee na euh, wax mason na maa waxoon naa leen naka jekk ne leen Ousmane Sonko du bokk ba ki mu nekkal sax nga ciy discuter waxoon naa leen ne du bokk. waxoon naa leen euh, du bokk léegi fan la tegoon waxoon na ne jomaay du bokk tamit léegi fan la tegoon ci prof bu leer ne wala ci xam-xam ne Ousmane Sonko du bokk ndax Ousmane jamono yooyu dañ ko éliminer ci nàngam wala dafa def nàngam lu tax du bokk loolu lépp da ngay delluwaat rek ne xalaatu boppam la doon waxee rek daf mel ni gisaanikat bi ak sëriñu tariyax bi ak yi nga xam ne mooy saltige bi rek daanaka ak météo duñ sore bu dee fukk benn lañ ci tan du wax ci muy dëgg maanaam fukk yu nu wax rek benn moo ci tànd te tànd la mu tombe muy dëgg nit kuy tànd nag du ñàkk nga tànd benn bis daje yem ci li ngay tànd du du xam-xam xam <coughs> benn bi ci des wax naa moom Kader mi sax ne mi Touré réeroo wut ak euh, Macky Sall beneen bi ci des nee mii Mimi Touré président man nga ko yeb nii ci mbedd mi mais bu ngeen jàkkaarloo du kii président dafa am worma ko nit ñi ëmbal Mimi Touré su fekkoon da koo yeb wala mu dépassé ko kon avant moom président Macky Sall di yëg ni mii mi Touré dépassé na ko nit ñi ñoo koy ñëw jàpp si ko ndax parce que dafa am lu koy aar am lu ko protéger mooy moom mooy nit koo xamante ni dañ koo protéger ñin jàpp ñëpp kaso am na ci ñoo xamante ni dépassé wala wax ci mag Sall wala wax ci réew mi mag Sall yor lu jaaduwul leen jàpp ñooñu Macky Sall xamu leen ñu ci war a xamu leen Mimi Touré mi su ko defoon li muy foor foor dañ koy jëli ndax réew mi moo fi Euh, benn bi ci des Mimi Touré dafa bokkoon ci ñi bindoon moo tax Ousmane songo mii lu jar a bàyyi xel la Ousmane Sonko ba ñuy wax dialogue bu njëkk ba dafa lànkoon ne du dem dialogue bi ne man du bokk ci dialogue président Macky Sall ñu dellusiwaat ñu toog ay fan ñu ne opposition bi ñun retiré ñu ci bari def na benn leetar boo xam ne dañ koo bind pour adresse au président Macky Sall Ousmane Sonko ca kaso ba mu génne leen loolu ngeen def de man. bokkuma ci ndax euh, yëguma ko te ngeen tey ci bañ ma cee boole <coughs> léegi Mimi Touré toog ba démb mu ne du dem ci di jàkkaarloo Macky sàll ndax parce que Macky Sall euh, man jàpp naa ne ñaari argument yi rek moo tax Macky Mimi ture demul mooy benn bi moo fi mu jaar ak président Macky Sall dem di toog moom nii loolu jàpp naa du ko def beneen bi ko ñaareel wala ñett laa ci bëgg beneen bi ko ñaareel dem di toogaat ak président Macky loolu day mel ni la daloon Idrissa Seck ak Ablaye Wade te loola moo sawee Macky Sall Macky Sall bi mu génnee ci Ablaye Wade nanguwut a moom benn yoon benn yoon yoon ndax xam na ne bu ko defoon sénégalais bu génnee ñu sosal ko wala ñu yokkal ko wala ñu tuumaal wala ñu bàyyi ko comme nag Idi def na ci jaar ci échec moom du ci jaar <coughs> beneen bi ci desaat ñu ne Macky Sall euh, mii mi dafa wax ne moo ko génne assemblée moo ko def nàngam. dëgg la mii bi bu fekkoon ne poste rek lay xëcc te te nim ci daj ak poste tamit nit di la ko jox ne la defal ma nangam dafa mel ni jënd ak jaay la defal ma nangam boo ma defalee nangam boo àgg ci dat booba dinaa la jox nangam mais léegi demal nga campagneel ma nekk sama directeur campagne dem campagneel ma boo ñëwee boo gàñee dinaa la def nga nekk président assemblée mu dem mu ñëw bi mu dikkee mu ne ko keneen laa koy def koo xamante ni campagne wut woon defi wut woon kenn xamu ko woon ci kii pro supporté wul woon ma maanaam àndul woon sax ñi doon gunge ki nga xam ne mooy Mimi Touré ba même pas mu des ay quinze minutes mu ne ko ndax mën naa la woo mu ne ko mu ne ko léegi sensé naa version mais léegi loolu sëñ bi loolu góor sax da ciy mer góor sax jaral na ko kii waxantuma laaj ko en tant que jigéen ñu ne loolu lépp jeex na moom mu jeex mu ne ko mën naa laa jox yeneen i post ak yeneen yi Aminata Mbengue Ndiaye loolu lépp ci ñu Mimi mu ne ko doy léegi mu yor député gi nga xam ne moom la yor di dem assemblée di dem ak dikk ñu dikk ñu ne ko sa député nangu nan ko ndax ñoo la ko ñoo la ki yoon dëgg te moom ci coalition la demee woon dëgg-dëgg kii ñu wax ñu ne Bougane Gueye Dany naa ñi fi mbell mbelli ñëpp d'accordoon nan pour ñu dem ak nangam ak nangam Mimi Touré dëgg-dëgg Mimi war nan ko am respect buñ ko jox bu dee ñii nga xam ne ñooy dem ci Macky ak di fa dem ñoom ñëpp ku ci nekk moo la ëpp avenir ci politique moo la ëpp avenir ci réew mi mu fi lim fi fi def nekk fi lim fi nekk en tant que premier ministre en tant que de kii bari na lu muy xam loo xam ñoom ñooñu xamuñu ko ba noppi nag mag leen ci aas ba noppi am expérience bu ñu amul ñoom ñooñu xam na ne bu fekkee jàllale communication ak message ak ci wàllu loi ak droit ñoom ñëpp ku ci nekk état bi mën na ñee mën nañ laa nax te mën nu koo nax moom kon dëgg-dëgg di ko wax yooyu surtout nag ñoom ñii di dem ñoom ñëpp nag. dëgg-dëgg danoo naa tardeel nit ñi rek mais bu fekkee gañe dëgg-dëgg li nit ñi di analyser xam ko politique ñoom ñoo ñu dem ñëpp kenn mënu cee dem gañe kenn kenn gis nga élection yi cinq pour cent sax bari dina néew ñu ko ci am cinq pour cent cinq dina néew ñu ko ci am ñooñu ñuy wax ñëpp du ko am président Macky Sall xam na politique lu tax mu bàyyi candidat yi ni mu bari bële mu bëggee mu xam ne dafa bëgg yëf yi xam na ne demul te leer na pour mu jaxase yëf yi mooy mu def def ko ay kandidaa yu bari bu demee deuxième tour mu fexe ba xëcc ñi ci des loola doon liggéeyam loolu sëñ bi <laughs> euh, ñoom xamu xamuñu ko xamuñu xamuñu te it man élection yi sama gis-gisu bopp bu Bassirou Diomaye demee Amadou Ba dem ñi ci des ñëpp dem gis nga su ma doon wax kan mooy jël troisième position piir lay doon piir xëy na loolu sax ñu baal ma ci ndax ñoom. jàpp naa ne wax dëgg yàlla man euh, ku leen wax loolu ñu mer la ndax parce que dañoo bëgg a jël président dañoo bëgg a jël réew mi waaye man classement bi daal euh, fi ñu toll diggante premier tour ki jiitu ak deuxième fi ñu toll mi ngi nekk ci Diomaye Faye ak ak kii mi Bassirou Diomaye ak Amadou Ba Amadou Ba te kenn ñoom ñii kenn mënul wax ne maa ciy jël premier tour fi ñu toll kenn mënul koo wax waaw waaye ñoom ñii ci la nit ñi gën a nekk ne léegi li li mii mi di xeex te wax ko mii moom. ba ñu topp ci ginnaaw kenn ku mu leer na mën na fee jële président Macky Sall ba ñu ko te ñoom buggaan ñoom ñi yëpp fi tollu seeni mbir daanaka ak ñeneen ñi ci bari leeru te beneen bi ci des ñu ne Mimi lu tax de mun mii Mimi bu demee ci président Macky Sall bind ko tontu wut ba heure bi mu leen di woon lool te naan bañ ndax booba conseil constitutionnel jëlagut woon benn décision booba loolu moo taxoon bañ ba mu jël décision ñu ne ko comme yow yaay gardon de constitution waxal ci mbir mi bala nu koo décider. léegi waxu ca ba nu décider loola mu leen di woowaat naa leen kay leen ci sama biir ngay dem mii mi am na ful la moo tax demul ak it loolu lépp fi li tax mu ne demul xam na droit xam na tamit ne dem fi amul benn njariñ yàq ay tànk la yëkkati ay kàddu wax ba ba kii la wax ba géex la waaye dara loo fay mën a jële amut na parce que tey <coughs> li nit ñi xalaat na <coughs> élection yi suñ koy reporté loolu goo mën a nekk na ci xelum président Macky Sall te bu leen ko waxoon benn intérêt dong la nit ñi seen ne leen dañ ko aj fii ak deux cent fii ak deux cent buñ ko ko ajoon ñoom ñi mën nanoo fexe ba gañe yow koo xam ne jëkk goo di wax yooyu da di politique nag faaw nga coow mais ñoom ñii coow xam nañ ni dëgg la nag ku nekk xam na ne ñun retraité ndax ku mel ni Bougane mi kenn du ne mënta am parrainage mais parrainage ak peese dara ci ci kii amul man du dëgg-dëgg Mimi Touré mi kenn du ne amul parrainage ak ñeneen ak ñeneen mais am na ci ñoo xamante dëgg dëgg na amuñu parrainage bu mat te it fa lan noo man ñu ngi taxaw fii daal sëñ bi daf mel ni daal senegal daal nekk gut ci loxo yu kii de nekk gut ci loxo de Ousmane Sonko mii de doon na leen wax ne leen man bu may wax ne xeexlu sama yoon nekkut eh, loolu laa gëm te loolu mooy sama kii mooy mbir mi fekk xaj bi bawagu la ku baw rek mooy nekk di artu mooy nekk di seet nu mu rawee léegi nag politique du loolu politique lu ñu def opposition bi kenn ku ci def dara dangaa war a ñëw ànd ci participer ndax ëllëg loola mën na laa song bu la songee tey Hadjibou Soumaré ma nga nee di wax kañ nga ko mës a dégg mu ñëw classé wut ci benn opposition ah keneen noonu keneen noonu keneen noonu mi ture naka la bàyyi ci ñoom ñi rek dem posé wu ci opposition bi taxaw doon radical boo xamante ni bu garaaw mel ni dafa opposé nangami at Macky Sall ay mois dong la ko opposé ñëpp gis ne Macky Sall am na opposition bu dëgër moo moo Ousmane songo mi Ousmane Sonko moom dafa doon opposant boo xam ne dafa xeex ba dugg boîte vocale moom moom vraiment euh, bu président ak Sall demul première tour demul deuxième bu demul troisième mandat ñëpp nañ ko sant Mimi Touré Ousmane Sonko Mimi mii Mimi Ousmane ngi taxaw fii di ñaan yàlla may nu wérug yaram ak wérug diine yaatal sunu wërsëg booleel na ci mujj gu rafet salaamu wa rahmatullahi wa